enfin amoon na peut-être euh, le coût de la vie. surtout. xam ngeen man demkatu marché la mm. ba mu nekk xale ba tey nag dama bëgg duggi marché. Mm-hmm. mais jën amul. amul waaw. xoolal jën yu sew yu gudd yooyu mel na yaboy mais dafa sew. brochette. waxuma la brochette de xaw ma nu mu tudd. am na yeneen. dafa gudd xaw a am beg yooyu moo mm. tuuru ci marché bi. Mm-hmm. doo gis leneen. bu dee coof doo ko laal. de yii doo ko laal de. doo ko sax gis. Euh, nga dem doon soble bi ma bëgg nag yaax moom moo gën a sama waa kër dama ne leen soble léegi. la ngeen fa ngeen daan def juróomi soble def leen genn wàllu soble. bàyyi daa rek. xam ah? du ndox. dama daan li liñ ciy wax sax dëgg la man dama gis ni euh, góor ñi xëy na farine bi moo leen gêné. te nag dara dàqul doomu daal. bu daa neex boo ko toggee ni nga ko war a toggee. def ci vinaigre ba mu neex mais bon mais doomu daal lekk bu lekk la. lekk la bu baax boo dem bay def farine. booy dem bay lekk ceeb mën nga def lekk farine. parce que ceeb c'est moom tamit féculent la comme ni farine nekkee. ni koy toggee la mais c'est pour dire que lépp cher. kilo carotte. Mm-hmm. bu la naan deux mille mille cinq cent. mais loolu dafa metti lépp lépp lépp a cher kon euh, war nañoo xool daal xawma ma c'est la production c'est c'est euh, le problème des subventions il mm-hmm. un problème il faut que sénégalais mën lekk <coughs> yàpp kilo yàppu nag bu dee quatre mille francs mais ndawal moo tax nit ñi sawar dem xew <laughs> waaw waaw. pour lekk ndawal bi pour door si ndawal bi. sa yi nag. maa ngi maa ngi tooñ séeréer rek yooyu ah donc c'est pour dire daal xam nga dañu koy café noonu rek mais c'est pour diir que dëkk bi mettitam kenn xamul lan la. essence boo jëndee dem Dakar dellu di dix mille ba jeex na loolu kan moo ko am. kenn. kon boog war nañ cee góorgóorlu daal seet nu ñuy def ba nga xam ni alalu askan bi dinañu ko séddale. delloo waat ko askan wi. walla delloo ko askan wi. ba nga xam ne mm. askan wi dina noy courant courant cher ndox parce que temps yi nii metti na. Mm. lépp même woyofal. woyofal mais woyofal fa nga daan def. quarante mille par mois. léegi presque cent mille la. nañ ci may nit ñi tamit. parce que métti nee na amul benn yokkute lépp cher lépp cher directeur bi de loolu la wax nee na ah. nee na woyofal gi amul yokk. amul amul la wax te ñun te ñu kii consommé. voilà donc métti na <laughs> daal le coût de la vie daal Sénégal daal il faut que ñu taxaw ci lool. Hmm. ndax sénégalais yi mën a jafandu. quand même waaw. waaw nañu mën a jafandu. Hmm. parce que Sénégal ay góorgóorlu rek a fi nekk ku ci nekk tey jii ba booy xëy di dem di ñëw au moins am na trois ou quatre personnes yu nekk sa ginnaaw yoo xam ne ci yow la ñu yaakaar. donc par jour tey jii par exemple wala quinze mille par jour ku a teg kenn koo xam ne day liggéey di feyeeku weer wala koo xam ne day góorgóorlu tamit. day gën a métti ci moom rek day gën a métti te te loolu la nit ñi di dudd. maa ngi dégg boulanger yi aussi waxaat nañu tey nee nañ ñoom itam dinañ xool na la état bi def wàññi kii soo dinañ waxaat mburu bi mburu sax yomb naa mujj mburu moom yomb naa muñ da ngay def comme gars yi ci suuf rek fonde ñoom Papa Sarr fonde bi la ñuy jël fonde bi euh, ñoom Papa Sarr Maria bi mi waaw moo gën farine la farine blanche la mais su boobaa dugub yokk ah dugub kilo dugub 1200 la fonde waaw je sais di nga gis ci mboq ba jaaxal la waaw mais en termes de qualité qualité bi sur le plan nutritionnel mhm. moo gën ceeb moo gën ceeb moo gën mburu blé bi moo ko gën kon boog euh, loolu mën na war nañ ko favoriser aussi préparer leen daal dem ci kii bi